waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñoo ngi janoo euh, jàkkaarloo ak euh, mbokkum taalibe mu baax Serigne Mbacke Mbuub yaakaar naa ko xam euh, alaaji jëwrin Serigne Mbacke yu fay xam nga ko mooy kenn ci jëwrin yi nga xam ne dañuy taxaw liggéey bi yàgg koo ànd ak moom sëñ Mbacke Mbuub jëwrin Serigne Mbacke yu fay di koo xam ne yaakaar naa tey yoonu murit bu fekkoon ne damay wax ne daa dem ba jàll te Mbacke yu fay jëriñoo wuñ ko nii ñu ko jëriñoo Mbacke yu fay ci dimension am ci liggéeyal Serigne Touba ak jaral geeg bëgg gi kuy Mbacke yu fay. day samil alim mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim laa xawla wala quwata illa billahi al aliyil azim waaw li nga ma laaj moom naa sawar a tontu loolu ndaxte jëwriñ Mbacke yi moom yoonu murid mënu ko woon ñàkk ndaxte man ñaata li nga xam ne fa laa juddoo fa laa yaroo damaa damaa judd rek fekk mu nekk ci yoon wi te di murid sadex mhm. képp koo xam ne yaa ngi wax ci Serigne Touba rek yaakaar naa ne bu waxee boo boo yeexantu di ko jox addiya ndaxte ku ko ku ko ku ko ku ko xam la waaw ni ma ko mën a waxee. ndaxte man ba may tuut tànk rek dama daan dañ daan def leetu xel boo xam ne seen kër la daan nekk mag ay rakam ak ay doomi magam ñoo daan ànd. waaw moom bu ñu ma gisee dinañ xam li li may wax baax a baax. waaw man taalibe Daaru Xudoos laa man Cheikh Moustapha Al Karim rek laa yaakaar. te du ma waxal kenn loo xam ne moom newul ci moom waaye daal su du su ma seddul lii. kon du ma li may woote newul ci man ndax xam naa ni daal. sagu murit nii la waaw li ñu mën daal mooy ñaanal ko rek suñu borom subhanahu wa taala may ko wér yaa Cheikh Khadim jërëjëf jërëjëf Serigne Mbacke boobu jazakallahu xayran ñu ngi kontaan ci yow bu baax a baax wasalaamaaleykum